ci réew ak bitim réew waa li neexul ci wasaare lam sarax la def ci xew-xewu làmb tey fekk fa Modou Lo le roi des arènes ak président écurie Énergie Khadim Gadiaga moom président Khadim Gadiaga ma wutu woon Cheikh Sow ñëw na ci évaluation écurie Rock Énergie fa mu njëkke mooy sa terrain d'entraînement ba ñu soxla woon bu ci toll ci 2300 mètres carrés maire Parcelles Assainies Moussa ko may te fan yu néew danañ ko ubbi invité acteuru làmb yépp ñu ne ko lan mooy objectif Rock Énergie mu ne entrer dans l'ère du professionnalisme suñu objectif bu moo nekkoon Modou Lo toll nii mooy ñu def suñu bopp ay professionnel mu ne suñuy mbër dañ doon joxe 2000 ngir participer ci njëndum licence bi waaye ci suñuy objectif dindi loolu ba mu set ca la bokk beneen bi mooy ñëw ci bopp écurie bi gi zéro franc nekku ci fi nekk nii nag kees ga asko ca ndax la nekk toll na ci 1 million 115 mille francs ba ñu waxee ca leader ba roi des arènes ba Khadim Gadiaga dafa xamle ne Modou mu ngi ci ay préparation yu méttee métti ay forme ku nekk ci écurie Rock boo ko gisee sa xel dal lii nag day firndeel ne rek Modou Lo pour tout lutteur entraîné pour ma Samba entraîné pour ma Demba moom day entraîné ngir ku ko làmb booleel Eumeu Sène ñan la ko làmb booleel journal sunu làmb ne bànkal say baaraam ma limal la gone ya kii di guy gii di Sa di Garga di rëg-rëg ñeenti xale yooyu la xalaat waaye laaj ba mooy kan la ci làmb booleeg Eumeu Sène quel a jàkkaarloog Eumeu Sène it guy gi moo gën a placé wu le choc des espoirs diggante soq ak Gamou Gueye 2 jàpp nañ ko le 15 mars le promoteur Baba Diaw démb la régularisé bi les combats bu xam sa cosaan ak Gamou Gueye bu lébu gi moom Baba Diaw ba mu régularisé ba noppi la ko jëy production ne ko xejal ma manit ma ñëw ca la ne daga ca CNG signé kayit ya régularisé diggante caatu yoo fak bébé julde journal ba xam le ne bi les combats calé ko le février ci stade Marius Ndiaye ba xamle ne bile combat moo tax Reug Reug guddi yi mu nga ci entraînement yu metti moom sax mu ngay entraîné ak les gendarmes de la GIGN moom Reug Reug gendarme yaa koy jàppale ngir mu gagné bile combat Ambroise Sarr may coach équipe nationale ne amul benn mbër bu gën a fort Reug Reug jamono ji ci làmb ji gisuma benn mbër bu gën a fort physiquement Reug boo gisee sérieux bi muy entraîné concentration beeg régularité bi rax ca dolli mu nekk gone gu ndaw demagul fenn loolee moo waral ma ne amul a fort physiquement yëg ne noppi na ngir

nekk kon fête de la solidarité nationale lu baax liy jag di def daal dafay war a sax dàkk du yoon ñu sax fi dàkk ñoom waa CNG dañ fee war a jóge lool mooy kàdduy Pape Seck coordonnateur national bu Fass moom Pape Seck mu ne Alioune Sarr ak équipe am dañoo war a dem génn làmb ji ñoom dañoo war a dem seen yoon bàyyi ñoog sunu làmb Afrique ba Afrique daj mbooleem dëkk bu fa nekk di pratiquer làmb fédération la ñuy def CNG dafay war a jóge ñu sàmb fédération doxal làmb ji buñ bëggee làmb ji dox neex faaw fi jërë ngeen jëf mbokk yi li moo nekkoon li a fës ci bi ñu leen jox di daje ba ëllëg incha